حتى استنارت ثم قابيس ضوئك الأضواء ضاء منك الوجود حتى استنارت من مقابيس ضوئك الأضواء Hare Hare سيقادنا سيقال مزائقي مام نعم خليفة نسيان كارو سيقاك وكل كلاهي تنسل ومبرارو سيقادنا مام خليفة يا بيك سريعات يا جيدا حقيقة أمسون يا كويسي ونن

हिमत मित माना एक माना ñëw jëm kenn ku ko am xamal nga say rak ak say doom lu doy waar saxaabu nee na maam Aliou Añas kuy sàkku loo bëgg a xam ak fan wu mën a doon wàccal sa kaw la am la jël la day naaro saxaabu nee na maam Xalifa Karmaan Xalifa kuy sàkku loo ak fànn wu mën a doon wàccal sa kaw laxat la jël duñ la doy naaro soo aadi nee na maam xalifa ñas tànneef nga yuy boole ay tànneef yu foor ci réew tànn nga sof si sa gaal ku moo ko jëm naaro maam xalifa waaye ku sof si sa gaal ku moo ko jëm naaro Cheikh Mouhamadoul Hadi Niass Cheikh Hadi neena maam Khalifa Niass Cheikh Hadi neena maamam alayhi Niass Cheikh Hadi neena maam Khalifa Niass tànneef nga yi boole ay tànneef bi foo si jooyoo tànn nga sof si sa gaal sa boo ko gannaaroo Cheikh Hadi neena maam Khalifa Niass sa boo bi ay wayu baa ñuy taaxuraan na yonent bi moo la tànnal ñii di axyaar way màggal leen Seex Muhamadu Aadi Seex Aadi munu ma laa ñàkk way Seex Aadi yaa dindi way gëlam ñu fi nekkoon ba jàng xawu leen yaa wulli seen xol ba ñu am ko moo ne maas waaye sii di askan wi ñoo ngi lay ñëwoon ba paase sa kaw tàmbali góor ñi amoon jaare te yaa ko borom xaajat Bukaar ak Hasan kaamil ma si sa njaboot wéetal nga leen waaye nag wéetal nga war a ñaa doon umma Cheikh Hadi nee na Baye Sidi awul la woon démb te am nañ ci yow dañu ne kuy moo ñëwaatoon bu lay jiital maas sëñ Hadi nee na Baye Sidi tamit tey boo ñëwaatoon waree naa dem baa bu doon ko jot yàlla am ko askan bi yàlla am na solo waaye danaa ñëw si jawrin bi bu sopp Cheikh Mamadou Xaadi yëkkatil say loxo sëñ Daara Cheikh Mour maa la fi woyoon woyoon maa fi woyaat di jéem ndax yow kenn ku lay way mbaax ak dëgg Cheikh Xaadi ñëw yaa ñu tànnal sëñ Daara Cheikh mu di jawrin waaye leeral na dëkk bi si dëgg ak sell ak gëm yàlla dem loo moom xalifa sopp lool Cheikh Mahamadul Haaj lépp lu Cheikh Moodu wax si murug bi boo ko dégloo say njëriñ dafay yokk sag mbaax dafay yokk say jom dafay yokk Cheikh Moodu dundal dundal walaay dundal ma tey may ittibaawaat waaye laa xarwa sëñ daara Cheikh Moodu laa xarwa kuy sa baay koy ci ba deey moo doon baay alxaaji ahmad ñas kawlax borom ndukumaan moo man moo tawe moo am seen amiigaan baay ji ba dee nun moo xool seet seetantam ba dee la seen daara seexu toon xaaliji musa tay wa mbayan musa naa di nga fii joxoñoon naan day bakka إبليس وآل فقاع وقال سيبه ونسيت محمود وصف سنجار سيحمر قالي لكتب سيما وتكري وين سنجار سيما جيبل من أنا مريم دل لا جيبل من لا فقطن من لا يوخو من لا جيبل وين عندك

summa salaatu bi akmaliha maa salaami bi atamihi ala bahjati kawnihi wa diyaai nuurihi sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarin aziim mbokki jullit yu tedd yi ci dajee ci dëkk bu tedd bu sell bii di sanc Maamu Ndumbe ngeen dajee fi bàyyeekoo ci ay gox yu fasanti ko ay palaas yu wuute ci diggante ay góor ak jigéen ëmb ay mag ak i boole ay xarit ak soppe dajale ay wëllëre ak i bokk yéen ñëpp ci seen tur ci seen sant ci seen jëmm laay tibbee ci sama xol nuyoo bi gën a tedd wuutu ci délégation bu tedd bi ñu ñun ñëpp ñu bokk wuutu ci xarita bu tedd ba Mawlaana Cheikh Ahmed Tijani nuyoo ba di nuyoo waa aljana ci aljana muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jël nuyoo bi di ko gunge ndokkeel leen yéen waa sant maamu ndund yëpp ci seen bis bu tedd bu foor ëmb ay nit ñu am qualité ci walu diine ngeen ko ci nit nit ñu baax ñu këyaloon lislaam ba tax ngeen jël seen ngont lu for lii tuddee leen ko maa ngi jiital ci nuyo boobu nag ilimaan yi fi nekk yëpp ci gox bi ilimaan yi fi nekk su ma jëlee seen nuyoo teg ko ci imaamu raati bu dëkk bi di xarit di soppe di wëllëre al imaam alxaaji njaay dana yóbbuwale aima yi fi nekk yëpp baas bu tedd bi baas bu yanji bi ëmb leen ma ñaaree sama nuyoo ci borom dëkk yëpp jël seen nuyoo teg ko ci borom dëkk dëkk bi muy num donnoo ci ay baay ñu donnoo ko ci ay maam ba mu yegsi ci moom te dara yàqu bi ahmed jéem mi toog nuyu mbooleem xaddam yi fi nekk ak kër buñ mën a bokk ak seex yi jël seen nuyoo teg ko ci loxol mu xaddam bi nekk ci dëkk bi wuutu fi maam El Hadj Abdoulaye Niass wuutu fi maam Khalifa wuutu fi Cheikh Ahmed Tidiane al Khalifa tabaarakallaahu di alxaaji Moodu Njaay ñii ñu koy ñaanal yàlla dëgëral ko te yàlla dolli ko te yàlla dooleel ko nuyu xulafaaw yi fi dajee nekk ay xalifa ci seeni maam nekk ko ci seeni baay su ma ci tuddee alxalifatul muxtaram tabaarakallaahu xalifaat suñu sëriñ di borom dëkk bi dëkk bi sopp ko mu soppoon dëkk bi lool sëriñ daara Cheikh Modou xalifaam baa ngi nii toog def délégation bu mag bàyyi ko Taïba Mbayeen di Cheikh Mouhamadul ndokkeel jëmuñu tedd yi ngeen jël bis bi tuddee leen ko jiital ci suñu bàyyi Ali Sall nekkoon jëwriñu xaadimu rasul ci dëkk bi yàlla boole woon ko xubbub yàlla bu màgg ba maam xalifa ñas bam jaar fi jaar ak moom ngeen nettali ko léegi ci mbooloo mi loolu li muy tekki rek mooy taalibi bu matee taalibi sëriñ ñëpp a ko bokk sëriñ bu matee sëriñ taalibi bu mu dajeeg muy sëriñ muy ta muy sëriñam waaye problème bi yëpp mu ngi nekk ci diggante taalibi bu matut ak sëriñ bu matut lu yàqu rek ci ñaar ñi rek la ko may ñetteele sama nuyoo tabaarakalaaw soxna si ngeen jël bis bi tuddee ko ko niñ ko waxee bu doon bu doon góor man naa nekk boroom dëkk ci dëkk bii di sañ ci maamu ngeen wane ne góor baax na waaye jigéen tamit baax na muy soxla nday jéy délégation bi wutu ko fi bàyyi ko kër Madi Yaasin moom tamit yàlla yàlla fay leen yiw te yokk leen teraanga jaajëfal ndawi sañ ci Mamoud yëpp jaaree ko ci sañu Ousmane Ndiaye Birane Ndiaye ak génération bi bokkoon ñi sosoon conférence bii tey ba yàlla dogal tey conférence bi bàyyeekoo ci seeni loxo ñëw ci seen loxoy doom ak seen yàq ñooñu ko taxawee ko taxawaay bu rafet jiital jëwriñ ju mën ci njub ci ragal yàlla ci mbaax ci yitte di sëñ daara Cheikh Modou nii doy dëkk bi yëpp dëkk bi yëpp tamit ko ci taxawaayam ak ci mbaaxam kon sëriñ daara yaag mbooloo mu nekk sa gannaaw yal na la yàlla jàppale yal na leen yàlla barkeel yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen yàlla taxawal maam xalifa bu xolam masaana sedd ci lu ko nit mu fa dafay wax ne yàlla na la yàlla yëkkati ba ñëpp seen la ñu téye la fa te yàggal waaye yéen ndaw yi sañ ci maamu ndumbe yi yàlla leen yàlla yëkkati ba lépp seen léeg ci wërsëg ci njub ci ragal yàlla ci mbaax ci tekki ci ubbeeku mu téye fa te yàggal leen fa ndax lii ngeen taxawee tey ci ngoon gi dalal ngeen xelu seen waajur yi ndax ku sa doom def lu mel nii ci dëkk yow may bàyyam nga fekkee sa xol dana sedd sa xol dana dal boo tëddee mën ngaa nelaw soo demoon ba nu muy tuddee dee di la gane ci yow kay sa problème fekkee problème nar naa am mooy li ngay fekki mais li nga bàyyi gannaaw moom leer na ci inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an la taxaafu wala taxsanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun loolu wane ko yéen ndaw yi ci maamu di ci góor ñi ak ci jigéen ñi seen dara yàlla yàlla taxaw leen bu mel bi buy mel nii taaroo nii mbooloo mu day nii li ko taxawal yépp ay ndaw rekk la te ay ndaw lañ yoo xam ne tamit loo fi gis ci dëkk bi yu baax rek seen loxo ngi ci muy ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew seen taxawaay moo fi taxawal jumaa ji tey ñëpp di seen côté boo ko duggee seen soro yi ñi karale ko biir ak biti lépp ndaw yi sañ si maamu ndumbe yi seen taxawaay moo fi taxawal daara ji seen taxawaay moo fi taxawal armée yi seen taxawaay moo fi taxawal yeneen projet yu mag yu nekk ci seen kanam ni fas yéene réaliser kon lépp rek ndaw ñi la ci taxawaay ñu ànd ci xelaatu mag ñu sell mag ñu leen di tracé fi ñuy teg seen tànk ndaw ñi tamit nangu caa tegu ba tax tey ñu am résultat bu mel nii dëkk bi de ku leen xeeboon ci xam-xam xëy na too léegi seeni ndaw yi gën tuuti ñu ngi jiite ay juma xale bi taxaw def xasida bi juma ji ñu mujj tabax ca siin moom lañ fa yóbbu moo ko jiite fële ca siin muy xale bi léegi jàng xasida bi léegi juma ji ñu mujj tabax ubbi ko boobaan léegi passé woon ñaari weer yu foofu nañ ko yóbbu samp ko fa muy jiite waa siin te doole seen su maamoon seen doomay jiite juma ji ci ndoofaan àdduna bi di fa dajee di fa jullee ñëpp law xam-xamam ak taxawaayam te mu ngi génne ci daara seen daara seen boobu ak ñu mel ni ñoom ñu feeñatu ak ñu mel ni ñoom ñu feeñ mu ngeen xam kon jërë ngeen jëf yéen ndaw yi moo tax bi dama koy def l'islam ak ndaw ndax ndaw yee ëpp ci jotaay bi ndaw yee waral bis bi ndaw ñi ñoo soppi dëkk bi ndaw ñi ñoo dalal xelu seen waajur yi ndaw mooy lan ndaw boo ko doon taxrif mooy li ko dooree fi ngay tëttaloo ba fi ngay tëjee distance bu gàtt boobu mooy ndaw li ko dooree fi ngay tëttaloo ba fi ngay tëjee muy benn kartan bu la yàlla may gént la ko sant la ca ñaari mission kartan googu sant na la ci ñi nga soqee ko ñi la daan manal te mënatul sédd leen ci sa doole ji ci sa kàttan gi nga taxawee leen dimbale leen muy say waaj ñaareel bi tamit sédd na la ci ñaareelu xaaj bi mooy sa kartan gii bëgg na nga sédd ci ñi nga soqee ko ci yow nga xam ne mënagul nga man leen a gungee fekk ba ñuy mane ku yàlla dénk na benn kàbbam sant la ca ñaari mission ñoroon nelaw waxuma la bay biddanti war cee dimbale ña la doon manal te mënatul nga war cee dimbale ji soqeekoo ci yow te mënatul yow nga jëlee kàttan la ci mën a ak mënatoo مولا القران تنتني الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة كن تدنا جن من من بنياري من بشيك من بجنجك دنوي من بو من بنياري دنوي من بو moo tax fi ngeen toll nii yéen a ci genn man-man te yéen a ngi bàyyeekoon ci tefes ak mënatoo ci yéen téere yi di ngeen fi yàggee mooy mënatoo man-man gu gàtt boobu nag ñu bëgg nga manal ci ñi la doon manal ba nga mënagut war cee manal ñu war soqeekoo ci yow te mënagut kon waroo nelaw bay biddanti lii mooy ndaw ndaw nag nekk jëmm joo xam ne lépp ko bëgg ndax ñeenti jumtukaay yàlla def ci jëmmam ku ne ci yow lépp bëgg la bu ci njëkk mooy karta bu ñaareel bi mooy taar bu ñetteel bi mooy njàmbaar fit bu ñeenteel bi mooy xel ku yor xel moo xam ne loo dégg mokkal ko te loo mokkal doo ko gaaw a fàtte ndax kan naq si til xajari la Yalla may la fit lu sa bët yi tege yéen la ko song yalla may la ta ku la gis bëgg la yalla may la kartan lu gis jàpp nga ne attan la ko faw yalla soxla la faw diine soxla la faw yonentu yalla yi soxla la faw wëliyu yalla yi doon na yi soxla la waye ku am ñeenti jumtu kay faw aduna soxla la faw bakkan soxla la faw bànneexu bakkan soxla la faw saytaane tamit soxla la ndax ñoom ñeenti ñii li mu bëgg ndaw a ko man moo tax kon ndaw lépp a ko bëgg mu des nag ñu war a ràññee ci ñi ko bëgg ak ñi ko bëggal parce que ki la bëgg ak ki la bëggal nekkum benn ki la bëggal lim soxla ci yow bu ko amee rek sànni la ki la bëgg nag dafa lay teete di la jàppale ba nga réussir ci sa mission bi nga nekk ki la bëgg pire mooy yàlla ki la bëgg pire mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak moroom yeneen toog yi ki la bëgg pire mooy saydi ahmad al tijani ak moroomi ak taabam yi ki la bëgg pire mooy xutbu bu tedd ba mawlaaya al xalifa alxaji muhammad ki la bëgg piir mooy say waajur yi ñi nga soqee ko sa ndey ak sa ak noo mën a mel li ci des nag dañ laa bëggal rek àdduna bëggul la mais dalaa bëggal seytaane bëggul la mais dalaa bëggal bànneexu bakkan bëggul la mais dalaa bëggal naka noonu tamit tabaarakallaahu bànneexu bakkan ak seytaane àdduna yooyu yëpp kenn bëggul la ci mais dañ laa bëggal ndax luy bëgg yow rekk ko man adduna da laa bëggal adduna day bëgg ku ko dimbalee ci jaxasoo dafay bëgg ku ko dimbalee ci dajee ak dajale nekk ci mawaqirul ijtimaaiya yi muy réseaux sociaux yi groupe bu ne nga dugg wax ju ne nga commentaire su ko defee loo gis tamit nga jéem koo publier loolu ndaw a ko man mais makkan ko te loolu la àdduna soxla bakkan dafa laa bëggal mais bëggu la bakkan li mu mooy nelaw yu bëri ku la gën a bëri nelaw kooka la bakkanam gën a dañ nelaw yu bëri mag talatu ko ngir wéradi mag mënatu ko ngir métit yu ñuy dund moo tax bakkan lim bëgg lépp ndaw a ko ko mën a jox mais mag mënatu ko bi ci teg muy saytaane dafa laa bëggal mais bëggu la saytaane li mu mooy lekk ba regg rek loo regg xeet na ko ndax feegi reggoo mënu ci yow dara lekk ba regg nag dëgg ndaw a ko man mais mën a ko ndax yàlla dafa nattu ñaar dafa nattu ndaw mi toll ci mën a lekk ak mag mi nga xam ne dafa ton ci ñàkk mën a lekk ndaw li mi mën a lekk amul lu lekk cent pour cent mag mi mën a lekk man mi am lu mu lekk mënta lekkat lii rek mooy àdduna ñi mën a lekk amul luy lekk ñi am luy lekk mënatuñoo lekk lii rek mooy àdduna yow nag mi toll ci mën a lekk di uti loo lekk nga xam ne tànk lekkuloo ba regg seytaan li ñuy am doole yëpp mënu ci yow dara moo tax mu bëggal la fu mu toll di la regga ndax su boobaa bu la fecc loo nga fecc bu la fen loo nga fen bu la jëw loo nga jëw bu la xas loo nga xas bu la njaal loo nga njaalo bu la gaaral la lee nga gaaral kon ñeenti ñii dañu leen a bëggal mais bëgguñ leen ñeenteel ba mooy bànneexu bakkan bànneexu bakkan li muy bëgg mooy bëri wax ju amul benn njariñ wax ju amul benn njariñ mag talatu ko booy wax wax yi gisam ne yaa ngi may tàngal bu ko defee nag wax ju bëri jooja ndaw a ko tànn rawatina ndaw yi léegi ku la ci mujj judd gën laa bëri wax loolu la yàlla dogal su boobaa nag ñeenti yi kenn bëggul la ci mais ñoom ñeenti yëpp dañ laa bëggal kon nag nañ wan gannaaw àdduna xam ne bëggut ñu dafa ñoo bëggal nañ wan gannaaw bëggut ñu dafa ñoo bëggal nañ wan gannaaw bakkan bëggut ñu dafa ñoo bëggal nañ wan gannaaw bànneexu bakkan bëggul ñu dafa ñoo bëggal jox suñ bopp yàlla yàlla dëgg mooy ki ñu bëgg yàllaa bëgg ndaw ba missionnaire-am yépp di ay yonentoom cent vingt-quatre mille mu leen ñaari mu jox leen message bi ne bu leen ko publier muy anbiya uya ñii mu jox leen message bi ne leen ko publier muy mursaluna ya ñoom ñëpp ay ndaw lañ ma amu yàlla mos a yónni ma ngir bëgg ndaw ndax yoni da fay bëgg pench ni soppé ta ndaw mo mëna soppi pench mais mak mi dul ko mën ta soppi da kon nak bu la yalla bëggé ba jël mission am tek ko ci sa loxo yalla deseetu la dara yalla bëgg ndaw ba ko muy duggal aljana sax fa lay tegg ba nga nekk sa digit ndaw sa digit kartal mu door la duggal aljana mais mak ci nim tollu kenn du ko duggal aljana ba alquran ne inna ansanaahunna insaan fa jaalnaahunna abkaar dafa lay sosaat ba nga toll ci fanweeri at ak ñett ci sa digg doole mu dugal la ci nga nekk ci bànneex nag dootoo dund dootoo dootoo deeti mukk nga nekk ci bànneex kon kii la tëgg ba ni nga toll ci sa kartam nga dugal aljana jël ay misooxam teg ko ci sa loxo kooku bëgg na la yonent yëpp dañoo bëggoon ndaw ndax mission bi leen yàlla gàcc ñu waroon koo porté mënuñ koo tasaare joxe ko ni mu waree te am na ñoom ndaw ñu seetloo moo tax yonent bi mission yu bëri ci wàllu armée muy wàllu sécurité ci wàllu guerre ci wàllu nekk ay ambassadeur mu nome leen ay ndaw la daan nome ba muy jël mu sànnoo Umayr di ko nome muy ambassadeur ca Madinatul Munawwara presque ay dix-huit ans la am ba muy jël Usaama ibn Zayd jël arme bi mujj takk jox ko ko mu war a xeexi ca Balga booba daanaka ay dix-sept ans dix la am te mag ñaa foo nekk ay général Seydina Aboubacar an fa Seydina Omar an fa Seydina Seydina fa mu jël raaya ji teg ko ci loxol Usaamatu suñ mbokk nit ku ñuul di xale bu ndaw kon mbooleen mission lislaam yi rek yi yàlla teg ci loxol yonent bi bu ko daan séddale ci loxol ndaw yi la ko daan teg yéen ndaw yi na ngeen bàyyi xel ne yéenay yaakaaru lépp yéen la ñëpp yaakaar seen waajur yi yéen lañu yaakaar seen famille yi yéen seen dëkk bii di sañ ci maamut yéen la yaakaar gox bi ngeen dëkkee ci commune bi yéen la yaakaar réew mi ngeen dëkkee di Sénégal yéen la yaakaar diine ji sax yéen la yaakaar kon ndaw mooy jëmm ju lépp yaakaar ku lépp yaakaar nag bu tasee yaakaar rek yàq lu bari ku ci am doom bu commencé man dara la bàyyi jay yëg ak yaay ja mooy sama coono lépp mu jeex ndax am naa aw waxambaane li ma waroon a def ci kër gi yëpp dana ma ci wuutu su boobaa fexeel nga am jom fexeel nga jub fexeel nga ragal yàlla fexeel nga nangoo liggéey su boobaa lépp loo dugg rek yàlla dana la ci génne waaye nggak tasee sa yaakaaru waajur rek doo gudd fan mukk nga fexe ba dëggal sa yaakaaru dëkk ndax dëkk bii avancement am mi ngi ci ndaw yaakaar rek muy loo man nekk ca boo tolloo ci jàngi jàngil boo tollee ci liggéey yi demal nga liggéey waaye li gën yées tolloog loo te defoo ko te su boobaa waxtu wi ak dund bi du la xaar day paase te lu xas paase dootul ñëwati kon yéen ñi nekk ndaw toll ci jàng jàng leen ba jamono ji jamonoy xam-xam la yéen ñi toll ci ñu leen di yar nangu leen ku leen yar jamono ji jamonoy njub la jamono ji jamonoy ragal yàlla la jamono ji jamonoy mbaax la bon sax boo ko defee say mbokk yoo njëkk a bay ñëpp a séex lu mbon kon yéen ñi ci jàng ak yaru nekk leen ci yéen ñi yàlla may tamit ngeen toll ci liggéey liggéey leen ba dee lu ngeen liggéey doy waaye nag la liggéey ba ànd ak lu lew na liggéey ba ànd ak lu yàlla gërëm lu liggéey ba ànd ak lu xel man bu leen yàkkanti bay dugg ci lu léeru bëgg a tekki bu mu leen dugal ci lu léeru lu ngeen di dugg rek na fekk muy lu leer ndax boo duggee ci lu léeru bu la teen tekki ngay tekki ci nit yow doo ko fekk kon bu leen yàkkanti dugg leen ci lu leer te ànd ak teey bu ngeen nangoo liggéey ku ci bokk ci famille bu néew doole yàlla may mu juddu ci am jom nangoo liggéey mu fekkoon ñu xeeboom ak famille bu nangoo liggéey dana dem ba génnee ay waajuram ci ndóol génnee leen ci ak xeebu ci montagne boo xam ne ñëpp leen ñee ki am jom piir mooy ki juddoo ci néegu ñax wala mu juddoo ci néegu seng góorgóorlu takkaayu génn ko dem di liggéey di ñafe ba mën a tabax étage négal ci bàyyi mag yaayam fexe ba yóbbu bàyyi mag yaayam màkka buñ bëggee dem faas mu dimbale leen li li bàyyi mag soxla lépp mu gàddu ko ba dara war ko leen lu julli ko ñaanal kooku mooy ndaw lu baax waaye fekk sa ndey ak sa bàyyi sonn ci sa sosu sonn ci yar la sonn ci jàngal la nga dem ba nekk ponkal war a jeexal seen ak coono yokku leen coono ak gàcce donte doom ñàkk am doom sax a ko gën ndax arab yi nee nañ bëri na jiir mil wala jaasir goo xam ne moo gën a sedd xol am doom ndax léeg-léeg nga dund dund ci sutura kenn xamul la ci dara ñëpp la say mbokk waaye kañ lañ la wege bi ba nga màggalee ba nga màggalee am doom yu bon ku la wegoon xeet na la ku la ñëwoon yërëm na la ku la fonkoon tey fonka dina la ngir lan njaboot gu bon goo xam ne teguwul ci yoon kon yéen doom yi yéen mën a jëlee seen waajur yi ci xuuru xeebeer yóbbu leen ci montagne ñu ñeete bañ man leen a ñee yéen mën a yóbbu yéen mën a jëlee fu suufe yóbbu leen fu kawe yàlla waxu kenn dara ku góorgóorlu yàlla dimbale góorgóorlu rek te teg ko ci góor góorgóorlu te teg ko ci ragal yàlla góorgóorlu teg ko ci jom soo ko defee rek waat naa ci yàlla man ngaa génnee sa waajur yi ci xuuru ñàkk yóbbu leen ci montagne boo xam ne ñëpp leen seen góorgóorlu leen ci am nañ ci yéen yaakaar dëkk bii lu fi nar a soppeeku ëllëg ci yéen ñii lañ ko yaakaaree loolu nag mi ngi mën a amee ngeen bokk takkaayu rek bokk jàppoo bokk jàppante kenn ku nekk ci jafe-jafe na ko ñëpp sotle bu yàggee rek ñëpp am man bu ñëpp mënee lépp yomb waaye dëkk bu demee wala fan ñiy compté ñoom ñu mën ña coono du fa jeexati waaye bu ñu man bëree ba kenn mu ne la compte ci dëkk ngeen bëgg a kenn ku ne yëkkati rek lépp yomb loolu am lu dul ci ku ne koo tere am loo ko mën a tere rek dimbale ba ko yàlla tax wa taawanu alal birri wa wala taawanu alal ismi wal udwaan loolu bu ko ñëpp doon dund ñëpp ko xam ndax famille bu ne yàlla dana fa tànn ñu am boole leen nag ñu ñàkk ci biir famille la dana fa tànn ñu xam boole leen nag ñu réer dana fa tànn ñu muus boole leen ak ay dof ña fay am ñëpp buñ nangoo séddee ñu ñàkk ña ñàkk jeex ña fay ñu xam ñëpp buñ seddoo ñu réer ya réer jeex ña fay ñu muus ñëpp buñ seddoo dox ya dox ya jeex waaye li gën a bëri seddoo di leen reetaan rek ne kii dox na su ma ko bàyyi sax këram bi tax dañoo bëgg nga dimbale ko amul xel kon dimbalante man man yi duñ tolloo mukk am am yi duñ tolloo mukk xam-xam yi duñ tolloo mukk kenn ku ne li koy doy yàlla xam na ko bu la joxee lu ëpp sa soxla dafa bëgg nga partagé ko say mbokk kon dimbalante leen nii ngeen déparé seen daara Cheikh Modou ci at yi dal na xel dimbalante de moo fi taxal jumaa ji sëñ si Mamour gii ku fi ñëw kenn du leen xeeb ci diine ndax jumaa ju ne mooy sëmbalu dëkk ba ci diine ku fi ñëw dana xam ne nii seen diine jaral na leen ndax yëkkati leen seen alal firndeel li leen jaay inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna wane ko ak yeneen projet yi fi nekk yëpp yii ngeen réaliser ko ba pare yenn yi yéen a ngi seen gu seen ànd gi bu leen nangu bu leen nangu dara yàq ko jiital leen ci dëkkandoor bi jiital ci mbokk gi jiital ci kóllëre gi jiital ci boole gi leen yàlla mën a boole mu ñëw nar a gaas nar ko yàq rek ba loola te ngeen jàpp lii nga xam ne moo des su ngeen ko defee fu ngeen bëgg a yegg ko yegg man daal xam naa li ma leen yéene lépp mënu ma leen koo wax waaye daal li ma leen yéene yëpp yal na leen dal te mooy ngeen nekk ndaw yu teg nekk ndaw yu am wërsëg nekk ndaw yu jub nekk ndaw yu ragal yàlla nekk ndaw yoo xam ne dañuy nekk ay milliardaire ci dëkk bi état yi bëri dañ fi ñëw sàkket yi bëri woon na léegi sàkket yi dañ koy compté maa ngi ñaan ci baax ak yàlla yàlla na dem ba seng yi ñuy gis yëpp yàlla soppi ko ay terrasse ak ay étage dëkk bi leer na ni dëkk bi gën a leer am am yi gën a tasaaroo kenn ku ci nekk yaa ngi góorgóorlu di miire sa kër bàyyi ngeen am jox kenn ku ci nekk yaa ngi jéem a tabaxaat sa kër papa ngir am jom kenn ku ci nekk yaa ngi jéem a soppi situation bi sa waajur yi nekkoon ngir am jom ndaw loo gis rek boo xaree xolam la ca nekk rek mooy tekki tekki ci loo xam ne sax yàlla xam ne lii wóor risque pire la waaye risque ba nag kenn du tax nga tuddee ko xaru mukk xaru kay dugg gaan bu doon xaru kay damay xaru damay daani ko fenn rek moo gën a jege ko kay mo gëna jëgé kon loolu du xaw du dara lu dul bëgg a rek du dara lu dul bëgg dag dagg mu gatcha yi nga xam ne ko gis ndax amna yenn xol yo xam boko dund sa waji do mëna a nekk ak ñoom gis sa papa li feebar mëno ko fay sa papa amul lu mu lekk amul loo ko ko joxe te yaa yi nii ci yow la ko yaakaar dooleem dem na te yaati tuddee sa doole kon da nga ne fu ma mëna amé alal tamul leew dana ko dañ ñoo mën a soppi paal lii rek moo sonal xale yi kon yàlla yàlla jàppale leen yal na yàlla yokk leen gën leen a jàppoo ngeen fonk seen dëkk nit amul lu dul dëkkam nit amul lu dul cosaanam àdduna mun ta yàgg yàgg yàgg yàgg ba ay jàmbur ñëw defar leen seen dëkk bi yéen ñi dëkk rek yéen a ko mën a su boobaa nag fu waay am kër baax na fu waay tabax baax na waaye ku yàlla ubbi wërsëg njëkk la tabax sa dëkk cosaan bi nga xam ne fi nga juddoo te boo dee fii lañ lay suul ba bu ëllëgee bu la fiy suul ñu la indi duñ la xeex moo tax kon ñu toll ci ñaan pàkk ñaan leen pàkk rek dëkk bi gën a rëy ñi mën a génn génn leen kenn ku ci nekk ut pàkk jéem a tabax yàlla li muy baax baax du dimbale ku amul procès waaye ku am procès rek jël sa procès bi jox ko yàlla rek yàlla mën ci ndimbal kon wut leen pàkk yéen xale yu góor yëpp bi gën a rëy lotissement bi gën a yaatu dëkk bi gën a yanji dëkk bi gën a taaru dëkk bi gën a avancé jëm ci kanam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah wax leen jërëjëf sëriñ Hadi jërëjëf sëriñ Hadi jërëjëf yàlla na fi yàgg lool taxante wér yàlla na fi yàgg taxante wér waaye waaye dëgg dëgg dëgg dëgg xool yi sedd nañ li fi sañ aar yi andi tey yàgg naa andi waaye li andi ndaw ñu tey am nañ leçon fii ak 50 ans